dëgg yàlla dëkk mënu gën a neex Sénégal ci émergence kii nag wax dëgg yàlla di économiste bu mag boo xam ne wax dëgg yàlla ci économie naw nañ ko ci CEDEAO naw ko ci Sénégal jiite fi na fi euh, nguur waaye tamit xam-xamam màcc ci li nga xam ne mooy koom-koom bés bu ñu ko dénkee réew mi moom am na loo xam ne la koy doxalee moom nag wax dëgg yàlla mu ngi cee ànd ak euh, ñoo xam ne dañoo taxaw tey pour euh, dooleel ko euh, di mouvement dell si ngor ak jikko yi bi nga xam ne nag pour soutenir Hadjibou Soumaré nga xam ne Fallou Leye moom moo ñoo taxaw pour jàppale Hadjibou Soumaré ci li nga xam ne moom bëgg mbokk yi ñu seeti Hadjibou Soumaré asalaamualeykum mbokki Sénégal ñu ngi delloo njukkal sénégalais yi di leen xamal ne incha allah yàggatul danañ def tournée nationale ak internationale fekk sénégalais yi fi ñu nekk waxtaan ak ñoom parce que réew wax dëgg yàlla boo koy defar foo nga wax ak ña nga xam ne ñoom nga bëgg a àndal pour defar réew mi euh, suñu parti bi nga xam ne mooy démocratie et république dañu bëgg gën a yeesalaat suñu démocratie gën a jongal li nga xam ne mooy république waaye fexe ba koom-koom bi nga xam ne ñun yàlla may nañ ñu jàng ko xam ko kenn ku nekk ci fa nga nekk ci économiquement nga yëg sa bopp ne Sénégal daal mu ngi lay dundal Sénégal mu ngi dundee li nga xam ne nag moom mooy économie loola waral tey ñu ngi préparé pour rencontrer ay kilifa diine ay mouvement di ci delloo njukkal mouvement bi nga xam ne moom mooy delloo si ngor ak jikko yi pour soutenir le candidat Hadjibou Soumaré yeneen mouvement taxaw nañu pour jàppale ñu waaye ñu remercier Fallou Bey bi nga xam lay bi nga xam ne dafa taxaw tey pour ànd ak ñun parce que gis nañu suñuy doxalin te réew mi nag ku la wax ne munoo ko euh, redresser ci économie foog ñu am jàmm ba pare ah bu ñu amee ñaanu kilifa diine yi ba pare xool fi nga xam ne mooy secteur économie bi nga xam ne dafa nelaw ñu yee ko te Sénégal neex naa defar laaj la ma lu tax Sénégal neex naa defar lu tax Sénégal neex naa defar boo buggee ci rek soow boo amee ñetti yi di nga am cere ak soow soo amee suukar am soow am cere waaye boo ko yëngalee mu du doon cere ak soow ma ne ñun am nañu pétrole am nañu gaz am nañu zircon am nañu naaj am nañu àll bu yaatu kon pour mën a doxal Sénégal économiquement mu dox loolu day nekk lu yomb damane ne pour dawal oto ñeenti roue la soo amee baar am ñeenti roue am assurance oto bu leer am chauffeur bu xam code de la bu dawalee policier di ko téye ñun nag am nañu oto Sénégal am na oto bu baax am nañu papier yu normal chauffeur nag nañu am problème mu chauffeur nañu am te oto bii chauffeur yi ko bugg a dawal dafa bëri waaye ban chauffeur moo xam yoon bi nga xam ne bu fa jaaree Sénégal mën a suqaliku xanaa dañu fa bàyyi man mi nga xam ne économiquement loolu sama xam-xam mooy suqali économie te dama ne bu ñu xaymaa Sénégal ci ci ci oto di ngeen am chauffeur bu teey buy daw nank su gisee doo daan ralentir du histoire ak homme de loi du indi coow te yoon bi nga xam ne mooy yoonu justice yoon bi nga xam ne mooy tax ñu egg ci ca pandaw ba danaa fa dem nànk egg fa nànk ba client yi nga xam ne mooy sénégalais yi nekk ci oto bi dañuy am mbégte ci dawal bi nga xam ne moom la ñuy dawalee pour egg ci fa nga xam ne mooy ci pandaw ba dama ne nit ku nekk li mu xam nañ koy jox lii dañ koo xam jàngat ko réew nag bu doxul économiquement mooy réew boo xam ne day nelaw ci li nga xam ne moom mooy ay wërsëgam Sénégal réew la boo xam ne tey bu ñu gisee ku ko mën a yor te xam ko te jàng ko bu ñu ma fi bàyyee bu ñu ma fi bàyyee bàyyee nañ loo xam ne mooy wërsëgu Sénégal ndax dama koy defal ay yeneen réew di leen xelal ci yeneen réew nekk consultant boo xam ne dañuy jëriñoo sama xam-xam pour suqali yeneen réew waa man mi juddoo fii yaroo fii Sénégal yar ma fayal ma samay étude jox ma samay bourse jàppale ma ba ma doon li ma doon tey kon su ma ko delluwul njukkal man du ma gor te boo yoree oto boo xam ne da nga cee yëpp ay kilifa diine da ngay daw nànk daw ak yar ak teggin boo ci yebee ay élèves da ngay xam ne ay tout tànk ñu ngi ci ginnaaw boo ci yemee ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay coowkat nañu ay wax kat nañu dangay bañ ko la ŋàññi dawalal nànk ba egg fi nga jëm dem ci bisimilah egg ci alhamdulilah rabbil alamin kon xanaa agi bu dawalal lañuy wax dawalal